balaa nga balaa ngaa wëlis laa mujj xaw ma nan. balaa balaa ngaa ah? sàmba. nga exactement ah. léegi man li ma bëgg a wax foofu. mooy wolof bi danaa si ñëw mais dama bëgg xale yi nga xam ne ñu ngi jàngi école bu ñu demee ba tàmmaat seen lakki mag ñi xam nga boobu créé nga emploi bu dul jeex foofu. danañ dem ba xale bi dana tàmmaat li mag ñi daan lekk dana amaat wér-gu-yaram Sénégal yow leer na la tey. feebar yi sonal Sénégalais yi bëri na. lekk bi yàq na ñëpp. non bref vraiment man suñu njaboot yi ñëpp presque am nañu diabète. su ba ngoon da ngay jënd ordonnance nit ñaa ngi ci ay hypertension vraiment dafa métti. cancer yàlla nañu ci yàlla musul feebar yi fi nekk tey mus ñu mag ñi musuñu ko am. Mm-hmm. parce que boo jëlee lekk jàmbur da ngay jëlaale feebaram. mais bu ñu ko commencé def ci xale yi ñoom bu ñu demee ba commencé jëm mag ma fexe nag ci biir école bi lépp lu ñu leen di jàngal muy science ak technologie bi ñu soxla tey. système éducatif bi ñu nekk fii dama ko fiy dindi français yi littérature bi ñuy bafal fii damay jàngal xale science et technologie boo xam ne dañ koy concentré ci wolof te loolu def nañ ko ba pare ah ñoom professeur Massamba Gueye bind nañ curriculum bi bu yàgg mais ba léegi nguur gi defa ko ko man su may président damay fexe comme naar yi ni ñu def comme américain yi ñu def français seen làkk lañ jàngalee seen doom yi liñ nàmp mais ñu def nag après ouverture ñu jàngale anglais bu ko defee ñu mën a wax ak àdduna bi parce que français bi ku ko bëgg a def third langue langue mën nga ko def comme ni ñu def russe beeg espagnol bi mais làkk bu njëkk day nekk wolof bu ci topp nekk anglais. donc loolu wolof mooy nekk la langue officielle. langue officielle bi waaw parce que mooy nekk suñu làkk. Hmm. comme mag yow ni ñu def nii. léegi bu ko defee nag ñu mën a ouvrir ñu wax ak àdduna bi mais loolu bu ñu jógee ci loolu dafa am loo xam ne aussi foog ñu yokk ko ci xale yi mooy lan mooy suñu téeree mag ñi ñun ñu ngi jàng Jean Paul Sartre ñu ngi jàng Montesquieu loolu yëpp mokkal nañ ko civilisation française civilisation américaine <laughs> waaw léegi ay Rousseau et cetera naan seen livre yi man damay loolu fii dama bëgg suñu bindu maam Cheikh Ibrahima Fall yi bindu maam Cheikh Amadou Bamba yi bindu maam El Hadj Ibrahima Niass Baye bindam yi nga xam ne def nañ ko suñu mag yi fii Ndiassane suñu mag yi Cheikh Omar suñu mag yi fépp ci Tivaouane exer ci jàngu bi ku ci nekk ci ñoom bind na la ci jikko yoo xam ne buñ ko jàngalee xale yi bu ñu màggee dinañ delluwaat ci jikko yu mag ñi am kersa normal mag danga am jom da nga am fulla da nga am fayda mais da nga bokk da nga bokk ku gëm yàlla ku gëm sa réew yooyu yëpp ñu fexe xale yi jàngal leen ko bu ñu leen ko jàngalee bu ñu màggee dooruñu am complexe que réew mi boo waxee tubaab si ngay nekk ku nekk ku intelligent. ku in. voilà da ngay mën a dugg nga ko bokk nga. mën nañ ko boo waxul tubaab bu jóg dañ naan la kaw kaw nga suñu maas gi jógee. ah xoolal Serigne Mboup. waaw il parle à Kaolack à Kaolack il prend la parole. exactement. Euh, il dit les yo et les et les Euh, après c' est ñu jël ko en dérision di ko TikTok. voilà di ko di ko di ko tourner en en dérision ku mel ni sëñ mi exemple la ci yow mi alors qu'il a le mérite. mais il a de prononcer deux mots de français. mais da wolof sax la war a wax. <laughs> Ah. moom mérite la parce que jaaro ci parce que liñ li ñu jàngal dañ ñoo gëmloo ne pour nga jiite réew sax foog nga jàng français te réew ñoom ñoo ko yàq ñu jàng français. ñoo ko yàq